jërë ngeen jëf président national ci xët mu njëkk soleil national ngan nga muy amal ca Kédougou ci la yéenekaay bi dikk ba di ñu wax ne bu weesoo teeru bërëy ba ñu ko fa teeru moom njiit réew mi Macky Sall soleil national mi ngi ñuy xibaar ay xibaar yu jóge ci conseil présidentiel ba mu fa gonte woon démb fa la tënkee fukki mesure ak juróom ngir suqali diwaan bi di Kédougou war cee dugal na xaalis bu toll ci juróom benn téeméeri milliards juróom benn Macky xamle na ca ndaje may ne in fokk dañuy jël lu toll ci milliards jagleel ko jeunes dëkk bi ngir ñu dakkal mbëkk mi muy gaali loo gone di mbëkk wutali bitim réew journal lañ tudde ko solution miracle bu Macky Sall ngir xeex mbëkk mi lise ko nañu sàkku ne ci entreprise ci Kédougou di fa gës or ñu gën dugal seen loxo ci lu suqali dëkk ba jaare na fay doon campagnal candidat bu benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba Walf Quotidien nañu moom Amadou moom tënk ne problème Amadou Ba dëgg mooy waa APR Jean Charles Biagui dib enseignant chercheur ci wàllu science politique ci université Cheikh bu Ndakaaru ni ñu ci nekkaay bi moom li mu gis moo di kii di Amadou Ba dafa mel ne kook yaa moo tax ñu tànn ko li tax ba mbokkam yi yabu ci am mbojjam l'observateur xëy na dina ko jàngatal nee dëgg la am na ñu amuk jaaxle ci doxalinam waaye terewul ñi koy song ak di ko ŋàññ ak diingat am na ci ñoo xam ne guerre dal am kenn ci jege ñaaleem ku leen wax ñoom journal Témoin ne bu jëmee dugg ci ab discours de rupture bu boobaa du baax ci moom candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi candidat beneen di docteur Babacar Diop maire bu bu Kees xëy na séq waxtaan wu yaatu ak journal Le Quotidien borom FDS léegi la ma ngi fay fàttali ne candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm te pare na ngir jiite réew mi ay parrainage am mat na mi ngay programme bu mën bi ci réew mi ak ni ñu docteur Babacar Diop dolli ci ne li fekk ñoo ngi gis ci réew mi ay histoire yu mel ne yu Mame Mbaye ak yu ci mel ne yu Mansour Faye Sénégal du mës a jug ci sous-développement keneen ku sampum dëndëm doon candidat ci élection présidentielle 2024 te journal yi xëyee ko mooy Anta Babacar Ngom Diack borom arc Walf Quotidien xëy di ñu xibaar ne ma nga woon ci diwaanu Casamance doon fa amal ab tournée moom it fa ñëpp di teggee ko wóoy fa la ne woon dem na a tekk ngir Bougane Gueye Dany njukkeel lu mu delloo soxnaam si génn àdduna di Momy Seck moom la yéenekaay bi xëy tey lay def ñeen fukki fan ci biir suuf tekki jot na di programme présidentiel bi mu def moom Bougane Gueye Dany journal bi ne nañu Momy Seck la ko tuddee ba war na ko ko dédicacel fan yi di ñëw journal tit xëy ñëw ak ñun ci poème bi Bougane Gueye Dany def jagleel ko jigéeni réew mi jaaree ko ci soxnaam si génn àdduna di Momy Seck Dany di def tey ci biir